أبدا لو بي على من بي لي خاد سبوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدا قصائدي وكوني بها عبدا خديما لو سهر ربيت ربا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا لو استهر salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar fotohaati rabbil arsi an qad maa'ibi bijaahi lazi baahat bi man alaw mudar rabaa'iya fi ixdaami xayril wara badaa wa fi kulli sahrin zaydu rubhi wa fi safar rabaaya fi ixdaam ñu ngi jégalu bu baax ñu ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool ci ànd ak wér yaakaar naa ni jotaay bii du tey mooy première jotaay suñu digg ak sëriñ sëriñ bi nii mu def gàttalunu saa suñu ñëwee nii lay def am na ci boo xam ne ca ca bitti lanu lanu lanu gàttandoo di nu bi ñu ñëwee mu dalal nu waxtaan ak ñun mu àndaat ñun yóbbu nu ci appartement bi ni fii mooy seen appartement daal di àndaat ak seex bi ba ci néeg bi ni ko fii mooy sa néeg soo xewloo ba noppi na nga dem dal mu tax jëf ji mu jëf loolu yàgg na ci Cheikh Abdoul Karim ndax daa yor jikkoy bàyyam ba Serigne Fall te Serigne Fall daf ni woon maay Sénégal ñu ni ko Mbàkke noo ko doone mu ne drapeau bi ñaata couleur la ñu ni ko ñett vert zone ak rouge sëñ Fall ne weer du ma weer kenn zone du sonal kenn waaye rouge du ma rusloo kenn ñu ni ko électoral bi nag mu ni ñaata koñ la ñu ni juróom mu ni maa tabax jumaa ji def juróomi soro jël ba ca gën a tu dee Cheikh Ibrahima Fall may senegal kon ñett yooyee nga xam ni sëñ Fallu ci boppam muy du weer kenn du sonal kenn du rusloo kenn lool daa nekk Cheikh Abdou Kaye waaye sëñ bi ki ñëw ci yow yàgg naa ko wax tey bi ni ñëwee war a jëm si ci yow kenn ku ci nekk la nga sol def ne la simil ay yéene la tegale kenn ku ci ne mu jox la ni la solal ndax damaa bëgg ni may mel su may dem ci kilifa ci ku tedd damaa bëgg ni may mel ngeen mel moo tax yére yi ñu sol ñu ñëpp mën ni ko sol nii mu def ak yow yàgg naa ko wax tabaski bi jàll kenn ku ci ne yëkkati dina xar jox yëkkati na bu jox la daal di gaare nag camion xar yoo xam ni fenn fu ci nekk ak fa mu jëm ba ci président de la république fukki xar ak benn la ko jox maa ko yóbbu ak sëñ Malick mi ak jëw yi fukki xar ak benn xar moom moom la président jullee ak ñeneen ak ñeneen kon li ñuy wax ci moom tabam gii bàyyam moom a wax ci korite bi bi mu toogee mu ñu ma Moodu ma ne ko Mbàkke mu ñu ma seexal san sama doomam waaye ku ko gën a tabe ci àddina gisuma ko ma ne ko lu tax min ma bi ma bëggee yóbbu sama yaay makka ah seexal seex abdul karim nee na yéeme na ne nee na sa tab gi yéeme na ne sa tab gi coobare sunu borom eh, ne nee na Cheikh Alassane coobare sunu waay waay waay wax ji faranku lay li li lii moo terminé wax kon nag jël tuñu ci dolli dara waaye ñii ñu àndal ñëpp sëriñ bi ñu ngi lay yëgal ni saa suñu jëm si ci yow ñoom ñëpp mbégte la ñu kenn ku ñu day fanaanoo mbégte moo xam ne ci soxol ci Cheikh Abdoul Karim rek laa jëm ñoom ñooy soññi seex bi naan ko ban de la ñuy seex bi ñu ñu fi bàyyi kenn ku ci nekk ëmbal la cofeel loo xam ne kuy ñëw loolu nag leneen la moo tax Cheikh bi nii mu jëflante ak yow ah am na am na fu mu la teg te bëgg na la lool ñu ngi lay siyaare bu baax te di la ñaanal nga yàgg fi lool ci ànd ak wér seex seex bi soxna soxna see nga gis mooy soxna Aydi juuf moom yàgg na Amérique def na fa ñaat fukki at daanaka waaye daa bëgg seex bi kay bëggeel goo xam ne bi mu yégée ni yaa ngi ñëw daa ànd ak ay sax bi mu jàkkaloo Cheikh Abdoul Karim ñu présenté la ko sunu sunu sunu sunu mag la sunu lépp la soxna Fatima bintu Rasul mii moom sañ sëñ Amar sol ca Gédé ndax ndax demoon nga fa ziyaare ji waa Gédé moom it bi mu yëgee ni yaa ngi ñëw moom it ci lañ ànd ci délégation bari na ci ñoo xam ni bu nu waxoon ni Cheikh Alassane daa jëm ci kenn kenn du fa bi gisee yoon wi dañ ni bi ñu bari dama naroon a màbbiku ngir sa jikko ngir sa jëm kon nag loolu faw ñu seddal ku sëriñ bi kon nag ñu bàyyi Cheikh bi sëñ si la Cheikh bi nee na ñu ngi sant yàlla bu baax nee na ñu ngi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu ngi ñaan yàlla nee na magam ju tedd gi di cheikh mouhamadul muntaqa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ko ñaanal bépp kilifaam ci réew mi di ko ko ñaanalit moom itam nee na sëriñ bi nga yàgg fi nee na te nga ànd ak wér nee na nit su jógee këram nee na jëm kër nee na su yeggee nee na xaaru fa nag ku ko xas léegi la mu fay wuti nee na ku ko teral léegi nag moom nee na ci kaw teraanga ji nee na suñ ko waxee lu baax nee na ci yeneeni gox nee na fii daf fee war a ëpp loolu nag nee tënk na wax bi yépp nee na du soreel wax ji nee na lépp bana na ko bana ko ci solo nee na li am solo te nga yëg ko nee namante woon ngeen nee sëriñ bi seex mi nee na nag moo la raw nag ne nee na loo ko namm rek moo la raw ne billaahi ma maa la raw nee na lu doy waar dafa xew ne dafa tàmbali barki dem nee bind benn taalif nag ci yow nee na kenn amu ko kudul nee na sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko daan liggéeyal jiital ci nag seexil xadim ne ñett fan yi mu génn ne dafa tàmbalee nag bind benn taalif nee na ci nasaraan ci yow mu ko tàmbalee nee na ci xorondong yuy bàggante dafa am lu mu ci yëg nee di ko bind nag jëme ko ci yow fii ak fan yu néew dana noppi mu jébbal la nee na ba noppi nag wesaare ko ci àddina bi yëpp ndax cofeel gu ma am ci sa jëmm ji toog nee li tax mu wax loolu nee na ci biir taalif bi dafa laa wax ni man de ñëw naa ci yow mel ni xob laa woon waaye xool ga ma nga ma xool muy mel ni monaat buy nàmpal doomam baa mu mel ni jant bu yoru xob bi mooy def na ma nekk fil fleur noonu la Seexul Xadim woowee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci benn taalifam yaa tedd yaa baax yaa yiw waaye waaye Cheikh Abdoul Karim yaa ñime responsabilité ndax nag bi muy njëkk ñëw ci yow mu ngi ci xeex bu tar ci réew mi ba ñëpp xam ko nee na ñu bari su leen dëgmalee ñu ne ah cheikh bi nag may ndax danoo xaw waaye waaye yow Cheikh Abdoul Karim yaa ubbi porte yëpp ne yemoo ci loolu nga defar ko nag teraanga joo xam ni bi mu ñibbee ndakaaru waaye waaye dañ ne ko waaw seex bi yow fan nga jaar seex Abdul Karim mu ni laaj leen ko xolam wallahi alazim waay waay seex Abdul ya yaa tedd yaa baax yaa gore yaa yiw wallahi alazim nee looloo tax mu sant la nee na jéegoom yi Tuuba nee li ci ëpp yaa ko waral moo tax mu ni nee na bi ma xamee ne su ñëwoon fii nga tànc ko nee di nga def lu ne pour moom ak màggal gi fu mu toll ma ñaan la ni la nan ko bàyyi ba màggal gi paase ndax bañ laa teg coona te wóor na ma du ma ñibbi fii te tancoo ko wóor na ko waaye sant na la daal te ci ak ci biti jërëjëf Mbakke yàlla na la fi yàlla yàggal te wéral la waaye waaye nga yàgg taxawu nit ñi yàgg dimbali nit ñi si sa teewaay ci réew mi jàmm ju mat sëkk lay dox yenn say nga seeti nit am loo amaale sax ñibbi la nga yoroon ci as lëf amatuloo ko bunt boo làmbaat mu tëju yenn say nga seetinit nit yor as lëf wan ko ginnaaw loolu lay fullandi te yeggagoo fa nga jëm te fa nga te te fa jëm soo fa yeggee la nga yoroon ak la fulandi nga am lu ëpp loolu nag fuuf wax ji nag ñépp nag dégg nañu ko tabaarakallahu li li li ma mun la dem na fu ne ci réew mi pale bu ne tabbi na fa waaye baatin bi nekk fii nekkul nekkul foofa bër bërki démb la ma yóbbu ci réew Dubaay defal ma teraanga ju fa ma wàcce am na ñoo xam mën nañoo dugg Dubaay duñ fa wàcc deeraa la ñuy yem jàpp waaw deeraa mooy buntu Dubaay foofu ñu bari fa la ñuy yem waaye àggunu Dubaay waaye man damaa yàggale biir Dubaay ba bu ma estetee am ñu ne ma yow yegg nga Dubaay yow xaw ma ku yeggul waaye yow yegg nga moom nag moo ma yeggale loolu nag faaw ma wax la fas daa bokk ci li l'islam yi gën a kawee ku la koy jox rek fonk na la cay ndax bu ñuy séddale màng mi jëlee ci xaye yi fas ñaari cër lay am nit ku ko war benn cër kon fas la yàlla cëral dégg nga sëñ bi li mu wax kon sa fas woowu nee na ku ko gis ci biir fas it xam ne am na cër bu benn amul baatu cër la wax te fas dañ koy cëral ci biir lislaam sëñ bi bëgg na sa teewaay bu baax a baax bëgg ci ñi nga àndal ñëpp ndax gaa ñi nga àndal fonk nañ la te yàlla rek tax gis nañ ñi ñuy waxee ci yow waaye nag lu ko mat la ndax ñoom ñu fonk la toppatoo la seen teraanga rek la ñuy fonk na nga xam ne sëñ bi daal fonk bëgg na ci sa ñëw ñun ñëpp it bëgg nañ sa ñëw yàlla na nga fi yàgg ñëw yàgg ko fay fekk allahumma salli ala sayyidina muhammad ne Cheikh Alassane mii coobare sunu borom moo ne ci moom sunu borom moo seet di ko neex rek mu def ko ci moom ndax sëñ Alassane mii di ko gis ni muy doxee xam ne coobare la nee na ni muy doxee nit mënu ko fexeel boppam de nee na ni muy doxee coobare suñu borom rek la moo mën a mel nii sëñ Alassane sëñ ku doy waar la ku yéeme la dëgg dëgg dëgg man dëgg dëgg dëgg man bari naa lu may gis lool lu waaye lu mel ni li ma gis ci moom waaye lu mel ni li ma gis ci moom ci moom rek laa ko gis te loolu wax la boo xam ne foo taxaw wax ko tañ xam ko danañ xam ne li nga wax dëgg la. xoola bi mu toogee fii ak léegi rek. bi mu toogee fii léegi rek. façon yi mu fi def façon yi mu fi def. xam nga loolu. du kum neex rek nga man ko de. moo tax. nee na sëñ Alassane mi ñu ngi koy bëggee fu mu toll. te it xam nañ ne. coobare sunu borom jooju. mu def ci moom. daf koo tàmbali rek. waaye yëgaleegu ko de tey dana yëg jàmm sëñ Alassane Sène ni mel ñu ngi koy bëgge bu baax uktubi safar salaatun wa taslimun maal bi si sarmadan هلا من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد هند مقلد لباق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 wa fi kulli shahrin zayd rubhi wa fi